vidéo yi étudié nga ko plusieurs fois donc bu ci Antoine Diome li mu ci wax certainement gën la ko xam parce que xam naa li nga ko seetaan na ko mais beneen bi tey mooy est-ce que avec ñii ñu tuddee ay nervi gouvernement wala boog les responsables ñi nga xam ne dañu yaakaar ne ñoom ñoo leen dugal ci mbir mi est-ce que ñoom ci seen bopp gasaluñ seen bopp seen kamb je veux dire par là que ni ñi ñu tuddee ay nervi mais c'est des gens yoo xam dañuy wax ah ils parlent yenn saa nga dégg seen audio yi Euh, ci kii euh, ëllëg mën nañoo am ne ils ne ils pour x raison ils peuvent parler mën na leen a jàpp euh, il peuvent parler est-ce que tey gasaluñ seen boobu kàmb <laughs> mais effectivement parce que xam nga Sénégal moom euh, loo fi def te du feeñ moom amul parce que nit ñi dañu dañu dañu teew seen làmmiñ mhm. souvent dañuy naan suñu l'enquêteur dañoo ay fekk ni ñu ñoo ñun ñoo maanuwul ñun ñooy wax voilà euh, donc loo fi def rek euh, jàppal ni dinañ ko wax ba mu xëy suba ñàkk maanu boobu feeñ na parce que gisoo benn journaliste tubaab rek dem na fële ca buntu siège lu mu tudd APR wax loo na fa benn nervi donc mhm. tey ku leen bëgg piéger di nga leen piéger parce que Sénégal dañuy wax mais bu ñuy dellusiwaat ci vidéo yi xam mhm. lu mu def xam nga Antoine mun ñu tere lu mu def Antoine moo toog euh, à la TFM woote téléphone. Mhm. Euh, di xamal sénégalais yi ni que moom teeloon na leen wax ni am na ay présence force occulte. ba ni am na benn image boo xamante ni boo gisee waa ji yore arme. Mhm. kooku da ngay leer ni. du kooku nañ tuddee force occulte. Mhm. moom Antoine moo ñu wax loolu. te jamono jooju xalaatul woon ni vidéo dañ koy monté de xalaatul woon ni ay xawma lan ak lan ak lan ba mu ñu waxee loolu. Mhm. nit ñi génn wan ko ay vidéo yoo xamante ni te il faut aussi ñu taxaw ci loolu xam nga ma la dernière fa am na benn live bu ñu doon def fii bu ma doon def fii wàll. Mhm. maa ngi doon wax sénégalais yu filmé woon il faudrait que ñu volontaire génn ñu def ay reportage si ñoom pour ñu mën a teg ay affaire de faussaire. de mhm. côté. sénégalais yi jëloon seen téléphone filmé amul benn charge bu ñu mën a teg seen kaw. warul ñu leen mën a inquiéter donc ñooñu filmer seen i téléphone nga xamante ni lii source bi téléphone bii la mm-hmm. kenn mënu ko laam-laamee ñooñu war nañu mën a génn ñu identifier leen ñu def ay li nga xamante ay reportage si ñoom kenn kii euh, média internationaux yi jëm nañu ko rencontré à Grand Yoff mooy ki nekk ci balcon bi di filmer borom est que Juan xamul rouge bi mais dafa en tout cas ah, parce que <laughs> ay vidéo yi mu doy leen rassurer que defuñu dara sa mën a encourager parce que ay acte de bravoure la. Euh, vraiment euh, ñooñu bu ñu leen indee rek Moustapha. coono mmh. day jeex parce que vidéo boo xamante ni yow nit ki dafay commenter. am na boo xamante ne sax bu ma juumul Ngoné Saliou moo koy commandé yaakaar naa boobu ci euh, fii la ci ci ci VDN bi la ñu jël ay xale yu bari ay 5 ba 4 xale. Mmh. taxaw leen def leen ay bouclier. foire la waaw côté foire côté mmh. foire. def leen ay bouclier nga dégg kii di commandé di naan xale yi nañ jël léegi ñuy wëlbatiku di ñu gëm loo ko ni pour protéger nit man mi sol épi équipement protection individuelle man mi ko sol. Mm-hmm. maay taxaw ci ginnaaw xale bi nga xamante ni. amul benn benn benn défense ñu ñuy gëm loo ko ni kooku dañ ko teg foofu pour protéger ko. question boobu nga toog sax di ko posé sax mooy yëpp ñi nga xamante ne moom ñi nga jàkkaarloo. yaa yaa bii déjà mais Charles soo ko mënee am. am na am na boo xam ne mi ngi amee ci ci bi vers la foire. bii bii mooy waa ji kii ki ñuy tëgg mbéj boo xoolee vidéo bi ko cest à yooyu image mënoo tey jii wax a wax a wax a wax ba du ay image yu authentique parce que ay Sénégal yu ko doon jël dañ ko doon filmer te nekkul seulement ci Snapchat mi ngi naan way pour wan ni leen vidéo non moom daf na wax ni. Hmm. documentaire bu euh, kii def lu mu tudd Le Monde. di wax image yi ñu ngi ko jëlee Snapchat xaw ma. Hmm. moom la seetaan mais seetaanul image yi image yi nekkul sax Snapchat après la doogay dugg Snapchat. Hmm. ay TikTok nga ko doon fekk. après Facebook si la doogay dem Snapchat. Mhm. donc image yooyu noonu Sénégalais yi ko jël wax dëgg yàlla dañ ko jël de façon spontanée tey jii loolu amul benn benn montage li mu ñuy wax loo naan way image day dox ak mën nga jël benn image boo xamante ne <laughs> mais image boobu boo xoolee da xam ne lii nekkul nit ki mën na jël. profilu nit ki mais boo hmm. xoolee bu baax da ngay gis ni que lii nii du nit ki. waaw mais li tax ah. wu ñu ku du loolu possible la ni mu ko waxee mais li tax wu ñu vidéo bi ñu doon wax ci dossier ki wu Sweet Beauté bi. parce que dañ ko xam parce que ah, image boo ko boo ko di nga jël silhouette mën na jël silhouette nit ki moom li muy hmm. jël mooy forme nit ki. Hmm. mais du jël nit ki boo gisee di xam ni benn comme jeu vidéo la rek boo xamante mi déplacé te yaakaar naa ne sax sénégalais yu bëri xaar xaaruñu ko si ñoom parce que mënuñu ni xam nga dañuy wax sax ci moru juin yi fàtte ci ginnaaw am na xale boo xamante ni 14 la bu ma juumul. Mhm. xale bu ñàkk bakkanam fii ci Kër Mbaye Fall. Mhm. ñu ne bal moo ko rey. Mhm. moom ministre bii toog di ñu naan nañ def preuve de prudence xamul lu ko rey mu génn communiqué ni xale boobu paaka moo ko war a rey. waxul moo ko rey de. parce que deful benn affirmation di utiliser ministre de la république ngay jox ay information information nga war a jox waroo mel ni pambarta boo xamante ne day demee prudence mhm. boo mënta wax waroo demee li nga xamante moom mooy prudence mhm. ñaata yoon xale bu jigéen bi faatu ngor aussi dañ ne wax le contraire parce que élise du toj ci bopp yax ba fay bàyyi ay débris voilà chaque fois moom bii communiqué da dégg mu utiliser conditionnel ñi nga xamante ni sama classe gi dégg ñu tubaab le conditionnel la utiliser loolu yëpp am ci réew mi euh, Ziguinchor aussi am boo xamante ni moom autosuffisance la parce que dañ def expertise def contre expertise. Mm-hmm. lu mu tudd Samb. ñu ni kii euh, bal moo ko rey Goudiaby Goudiaby ñu ni kii bal moo ko rey léegi boobu anamu. Mm-hmm. beneen bi nga xamante ne aussi dañ koy fàtte mooy li xew Kolda. Kolda ba Ousmane Sonko di jàll. Mm-hmm. procureur bi nee na kooku dee foofu bal moo ko rey. waa léegi yooyu te procureur boobu bu ñu ko déglu woon moom waxoon nañu déjà quelque chose le procureur de la république de Kolda. moom waxoon nañu ne am na ay pick-up. ay pick-up yoo xamante amul plaque d'immatriculation. oui nit ñi fa nekkoon ñoom ñoo ñoom ñoo provoqué manifestation. Euh, oui ñoo provoqué euh, cortège yu Ousmane Sonko boobu noonu. oui ba am mort d'homme parce ñoo ñoo tiré bal bal bal réel. oui waa léegi loolu yëpp am parquet général bii ne fi Ndakaaru jéemul ibbi benn l'enquête jëmale ci ñoom ñuy wax di naan ay wéy dégâts yeeg xawma la lan ak ay perte benn nit bu dee. Mhm. wax nañu mën a am kersa di tudd ay waxu dégâts matériels. et malheureusement lu ngay dégg ñi wax mooy mbir yi dañ ko jël. Mhm. bu ko féetalee ay nit ñi yàq nañ ay ay station yàq nañ ay ay Auchan yàq nañ yàq nañ yàq nañ mais ñi si ñàkk seen bakkan nga xamante ni dootuñu leen gisati 16 personnes fu bakkan daanu moom mënuñu non nekkul personnes passé na seen bilan provisoire boobu nañ ni 16 personnes officiellement seen bilan boobu non hmm. bilan boobu nañu waxee 16 personnes hmm. après ñoom defaatuñu update am na ay mort yu ñu mujj découvrir après am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan hmm. bu demee ñoom joxaguñu ba tey chiffres yi nga xamante ni chiffre tey tey tey tey tey tey tey la hmm. donc loolu yaakaar naa ni tey waroon nañu mën a am gàccee di naan ay wéy dégâts matériels xaw ma lan ak lan ñu fexe ba ndàmp leen parce que ñi ñu war a njëkk a ndàmp te nen nga leen mën a ndàmpee mooy nga